sëriñ mbay jaxate nee na ma tagg bamba ak waxi bamba ak jëfi bamba ak gaayu bamba sëriñ musaa ka nee ak soppe bamba ak doomi bamba ak jëfi bamba ak mbokki bamba sëriñ mbay jaxate nee na bamba di kenn waxam di jenn jëfam di jenn kenn du bamba sëriñ Musaa Ka nee nawleem déggunu nawleem koo gis dafa yéem xalaasi bamba sëriñ Mbay Jaxate nee gisunu kenn xamunu kenn déggunu kenn ku niru bamba sëriñ Musaa Ka nee bamba amul maas kenn waru kooraas kemam amul faas saka fi bamba sëriñ Bay Jaxate nee gisuñu fenn xamuñu fenn dégguñu fenn ku mel ne Bamba Sëriñ Musaa Ka nee amul ca daymaan amul ca diiwaan xaadimu adnaan laa tudde Bamba sëriñ bay jaxate nee na bamba dumaasam fuure dumaasam buure ki kàngam eske ya bamba sëriñ musaa ka nee buuri ramlo buuri fuure yi kàngam waame nga bamba sëriñ bay jaxate nee na bamba dumaasam fóore tumaasam buure ki kàngam eske ya bamba sëriñ Musaa Ka nee na buuri ramloo na buuri fóore yi waa me bamba sëriñ Mbay Jaxate nee waxam ja daa jag ja daa jag ja daa sakaafi bamba sëriñ Moussa Ka du wax lu dul yoon du jëf lu dul yoon du ànd ci neen lu nen du bamba sëriñ Mbay Jaxate waxam ja daa jag jëfam ja daa jag jëmam ja daa jag sa kaafi Bamba sëriñ Musaa Ka nee du wax dul yoon du jëf dul yoon du ànd ci ne neena sëñ waayam day gëni baayam gëni na jaayam cay waayu bamba sëriñ bay jaxate neena foo fekk waayam gëni baayam gëni na jaayam cey waayu bamba sëriñ ba jaxate neena foo fekk waayam day gëni baayam gëni na jaayam cey waayu bamba sëriñ Musaa Ka neena waayam dafay gëm tey waaju am jom te bari ay ndam say waayu bamba sëriñ bay jaxate nee na ku àndul ak moom dara la moom yàlla bëggul moom moom ku dëddu bamba sëriñ Musaa Ka nee ku àndul moom di mos mbëtëg mbuum te kuumu ci guruum te ñeeku bamba sëriñ Mbay Jaxate nee Bamba dama yar ba ma am ak yaru te teegu may yar maa bëgg Bamba sëriñ Musaa Ka nee daawul yarey door baatin la joor sëriñ Mbàkke mooy góor est-ce Bamba sëñ Bamba sëñ Bamba daawul yaray door baatin la lay joor sëriñ Mbàkke mooy joor est-ce que ya Bamba sëriñ Musaa Ka nee na sëñ Bamba daawul yaray door baa baatin la mooy góor est-ce que ya Bamba Sëriñ Mbay Jaxate nee na ku bëgg yàlla ak topp yàlla ak xol bu sell na toppi Bamba Sëriñ Musaa Ka nee moo ngi fi yàlla cëppi yàlla mooy waa mooy waayu yàlla est Bamba Sëriñ Mbay Jaxate nee na xam na boroomam raw nay moroomam ku dégg Bamba Sëriñ Musaa Ka xamul ca lislaam ba sunuy maam ku xam le gug daam ma tudd Bamba Serigne Mbaye Jaxate nee na di jàngal nit ba mu mokkal te doo ko bindal ci yàlla Bamba Serigne Moussa Ka nee maa ngi di taalif te jàngu mawlif te fooru naa la fa nga nee bamba sëriñ ba jaxate nee ku bamba jàngal nga maana jàngal képp ku dikkul siyaare bamba sëriñ musaa ka nee ku bëgg daara akum siyaara na doomi jaara jàngala bamba sëriñ bay jaxate neena ñépp ngi may yéem man maa ngi koy yéem ñu bokk koy yéem yéeme nga bamba sëriñ musaa neena wesu na xar man maa di xar baax moo tax ma xëy baax baax wàcc na bamba sëriñ bay jaxate nee na ngi may soow man maa ngi koy soow ñu bokk koy soow waare nga bamba sëriñ Musaa Ka nee wesu na ak waar man maa di ak waar maari barawkaat képp na bamba sëriñ bay jaxate nee jëm nga ca yàlla jëmee ca yàlla ña bamba sëriñ musaa ka nee ya jege yàlla yaa topp yàlla yaa sibtu balla ahmadu bamba sëriñ Mbay Jaxate nee na yéeféer yi tëb na jullit yi tëb na ku nekk tëb na wut si la Bamba sëriñ Musaa Ka nee na yéeféer yi tëb na jullit yi tëb na ku nekk tëb na wut si la Bamba sëriñ Mbay Jaxate nee na yéeféer yi tëb na jullit yi tëb na ku nekk tëb na wut si la bamba sëriñ Musaa Ka na ñoo yore ngannaay ñoo yore càngaay wu def sa mbootaay topp bamba sëriñ Mbay Jaxate nee na yëfe jullit ni day roy moo tax royo ko rey ngeen tele Bamba Sëriñ Musaa Ka nee na di ak boy jullit di aw bëy sa jur gi dun boy jëf le nga Bamba Sëriñ Mbay Jaxate nee na mëneefu laa roy mëneefu laa rey cangara ya ko rey Bamba sëriñ Musaa Ka nee na na buur yi jël tubaab jaaxal xaram ye waane nga Bamba sëriñ Mbay Jaxate nee na ku la fi daaro yi ku daa fe xeera yi rey Bamba sëriñ Musaa Ka nee na pexey rëy na ndajeema tas na kum tego toj na muccu nga Bamba sëriñ Mbay Jaxate nee na mënuñu laa roy mënuñu laa rey yow yaa rëy may marxaba Bamba sëriñ Musaa Ka marxaba mbàkkiyu yaa dondu mbàkkiyu yaay góor gu tekke tekkil nu Bàmba sëriñ Mbay Jaxate nee mu maaroy te mu maaray damay fexe bay sa tooli Bàmba sëriñ Musaa Ka nee di lay way tey seenu ay may tey jéggaluy moy jéggal nu Bàmba Sëriñ Mbay Jaxate nee na démb amoo maas tey jii amoo maas doo am ëllëg maas kenn nga Bàmba sëñ Bamba dem amoos tey ji amoos doo am ëllëg maas kenn nga Bamba sëriñ Mbay Jaxate nee na sëñ Bamba démb amoo maas tey jii tey jii maas doo am ëllëg maas kenn nga Bamba sëriñ Musaa Ka nee Bamba yooyo taas ngir moo defu guraas jox naa ko sa paas ko sa paas ko sa yóbbu nu Bamba Serigne Mbaye Jaxate nee defar nga léppéy defar nga képpéy defar nga féppéy ko ci Bamba Serigne Moussa Ka nee yaa bari xam-xam yaa yaa bari jam-jam yaay góor am jom jàmbaar nga Bamba Serigne Mbay Jaxate nee na Bamba defar nga léppéey defar nga képpeey defar nga féppéey ci bamba sëriñ Musaa yaa bari xam-xam yaa yaa bari jam-jam yaay góor am jom jàmbaar